destination primordiale et prioritaire de la circulaire moo di les préfets mhm. maintenant par ricochet les autres ont été plus ou moins concernés mais dans tous les cas de figure c'est un épisode qu'il faut dépasser d'accord et à l'avenir ñu moytu alors ci ci 100 yi aussi dañu dégg président de la république mu def déclaration ba annoncé woon benn tournée boo xam ni war na ko def euh, ci ci réewu AES yi euh, notamment euh, Mali Burkina Faso ak Niger boobaak léegi gisuñu le premier ministre mu def tournée boobu Euh, bi mu annoncé lu mel noonu. nga dégg ko. ban xalaatoon nga amoon ci loolu. que moom Ousmane Sonko pare na pour dem def tournée ci ci ci ci ci dëkk yooyu. man du ma am xalaat je je lis la constitution je vous ai dit au départ ne le président de la République a un domaine réservé qui est la défense nationale un deuxième domaine réservé qui est la diplomatie donc la diplomatie c'est l'affaire du président de la République. mais su premier ministre ne dana dem tournée dama yaakaar ne waxtaan na ci ak président noonu ba xam-xam nga man nag liggéeyuma ak ñoom mais dama xalaat ne waxtaan na ci ak président certainement parce que de toutes les façons man je je sur la constitution je ne vais pas au-delà d'accord léegi à boobu muy ngarale boobu par exemple li ma bëgg a wax ngarale mooy tey euh, ku ne xam na taxawaayu euh, AES euh, ku ne xam na taxawaayu CEDEAO mhm. par exemple su fekkee est-ce que dina yomb Ousmane sonk di wax waxu AES Diomaye di wax waxu CEDEAO est-ce que loolu dina yomb. bon mais xam nga euh, AES ak CEDEAO bon euh, politiquement et même je crois que pratiquement le cordon ombilical coupé nañ ko barki démb à Niamey. Mhm. on a créé une confédération. mais comme Sénégal moom coow loolu bokk ci c'est certes le Sénégal est membre de la CEDEAO mais je veux dire bokkul ci coow loolu. waaw mais xam nga ñoom bi ñu nekk dans l'opposition dañu gënoon a jege AES que CEDEAO ci seen discours waaw ah, heureusement ñu ci seen discours. waaye <laughs> ñoom dañu gënoon jege AES AES aussi gën leen jege ba ñu bari jàppoon ni vraiment ñoom ñoom euh, niñ koy niñ koy niñ koy expliquer alors loolu loolu loolu sax dafa dafa dafa dafa dafa mel ni dafa indi déception ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci Burkina Faso wala Mali wala wala Niger parce que seen discours loolu woon ah. que CEDEAO taxawul AES ñoo taxaw euh, ñooñu ñoo dañu war a dañu war a tàqalikoo ak France carrément dañu war a bokk ci xeex bi nga xam ni AES ñu ngi koy xeex mais loolu moo nekkoon seen discours. Ah, heureusement tu parles a l'imparfait ne nga ma loolu moo nekkoon seen discours avant ñu ñëw au pouvoir. Mhm. léegi nag ils sont confrontés aux multiples et complexes réalités du pouvoir et aussi aux lourdes réalité du pouvoir alors actuellement je crois que ils ont une posture infiniment plus responsable. et même plus dynamique plus dynamique parce que gis naa ne ñun ñëpp yëg nañ ko euh, on a impliqué le président Diomaye dans une médiation bu ñu war a def entre mhm. CEDEAO et AES mhm. bon man mon opinion sur cette affaire est la suivante euh, certes le Sénégal a un prestige immense mais ce dossier est trop épineux dossier mooy bi ñu ko confié comme médiate médiateur. moom ak Faure de de okay. du Togo. ok voilà dama ne c' est un dossier très épineux. épineux mooy du yomb. waaw dafa waaw dafa am ay dëkk ah mooy dafay jafe waaw dafay jafe ok du yomb. alors il était à Abuja il a dit oui mais man moo sentiment c' que même bi mu nekkee Abuja ñu proposé ko ko euh, dafa waroon a am une réponse prudente du genre. je suis satisfait et honoré par votre proposition, mais laissez-moi aller à Dakar, réfléchir quelques heures et vous donner la réponse par le canal diplomatique. Mm Parce que Khamga, moi, il était au dehors. Mm <laughs> -hmm. Il avait une petite délégation, la ministre plus quelques autres éléments. Fina, il a le gouvernement au grand complet. <laughs> Il a même le Sénégal à sa disposition. Parce que Souladier Moustapha Nias Khelatam de Nokouach, <laughs> su la laajoon yow sa xalaat da ko wax. Mhm. donc il pouvait en un temps record faire de larges consultations pour avoir une opinion plus affinée. Mhm. sur la waaw e ouais, mais boo liiree discours am. itam daanaka wax na ci wax bu am solo ci AES parce que jàpp na ni. Mhm. Euh, lu jëm ci sanction wala wala wala taxawaay bi CEDEAO war a jëm ci ñoom loolu rafetluwu ko. jàpp na ni war nañu waxtaan war nañ fexe ba ñoom itam ñu def ay pexe ba ñoom ñu dellu si xam ni loolu mooy seen avantage ñoom ñëpp. même loolu lu mel noonu wax na ko ba ko. wax na ko ba ko bi mu fa demee wax na ko Burkina bi mu fa demee loolu moom ce sont des déclarations très responsables. Mm-hmm. loolu man je salue ça ce sont des. mais teewul ba tey le problème reste épineux. Mm-hmm. gis nga euh, Papa Ngagne AES. Mm-hmm. des États du Sahel. léegi s'est transformé en confédération. AES su ma ko doon tekki pour coller à la réalité damay wax accidentel l'adjectif accidentel. mooy A bi. accidentelle mhm. entité du Sahel l'AES accident la ce n'est pas un choix programmé ñii bëgguñu woon a créer AES c'est la politique française dans ces trois pays qui a été durement subie qui a provoqué des révoltes des colères des frustrations des chocs terribles mhm. bañ jël des solutions comme ça qui sont des solutions extrêmes radicales, radicales peut-être oui. même un peu suicidaires mm -hmm. mais il y a des moments où même la queue du serpent ressemble à une bouée de sauvetage dans la vie ya y a des moments où même la queue du serpent ressemble à une bouée de sauvetage te pourtant yàlla xam ne soo ci jàppee matt la nga dee loolu loolu moo dal ñii parce que moi je connais ces pays où j'ai vécu je connais les dirigeants de ces pays là nous connaissons moi je connais particulièrement le Niger li ñu war a moytu ñun moo di le narratif français sur le Sahel France li muy wax ak RFI li muy wax ak France 24 li muy wax c'est pour chloroformer les opinions africaines te intellectuels africains yi dañu war a moytu loolu dans cette affaire la France ne pas un bouc émissaire la France est un bouc architecte moo def lépp man li ma dama ko xam la France n'est pas bouc émissaire la France est un bouc architecte xam nga ñuy wax AES fii déglu naa fi démb ci plateau bi fii xam nga soo xamul de dessous de carte soo xamul les agendas cachés da ngay def une lecture théorique très belle mais non articulé à la réalité les services spéciaux français les services secrets français li ñu def Mali soo ko xamoon li def Mali def ko Niger def ko Burkina le jeu français dans ces pays-là qui masque un agenda suñ ko defoon Sénégal intellectuels sénégalais yi militaires sénégalais yi journalistes mhm. ñoo njëkk a révolté wu dal di développer un sentiment anti-français mais ku xamul xamul lëf soo ko dundul doo ko mun a xam. man dama fiy dégg ñuy def des théories sur le Mali ma xam ne c'est des théories fallacieuses je ne vais pas être long mais damay def euh, un petit rappel historique xam nga soo déggee Sahel Sahel Sahel doo xam nu mu doon la crise du Sahel d'abord il faut camper le Sahel géographiquement c'est quoi c'est une bande de terre horizontale qui va de Nouakchott jusqu'à Faye-Largeau la crise malienne là la crise du Sahel la avec les conséquences d'aujourd'hui AES ak tout mais les racines sont très profondes il faut remonter jusqu'à 1960 au moment de la négociation de 60 à 62 au moment de la négociation pour une sortie de guerre en Algérie le général de Gaulle a envoyé des émissaires à Evian Evian mooy dëkk boobu ñuy defaree bouteilles yi Evian yi ñooy naan léegi nag c'est Kirène Kirène la ñuy naan Evian les bains c'est une commune de la Haute-Savoie le général de Gaulle a mandaté Louis Jox ak de Broglie Louis Jox c'est le père de Pierre Jox le futur ministre de l'intérieur de Mitterrand mais ci biir mandat bi pour ñu négocier avec les Algériens c'est quelqu'un qui connaît bien l'Algérie qui vous parle qui a accès à des archives algériennes et j'ai lu les photocopies de quelques archives qui sont stockées à Aix-en-Provence en France xam nga li li le général de Gaulle daf noonu les, les, les, les émissaires algériens, nous allons vous donner l'indépendance, mais à condition que le Sahara soit amputé. Parce qu'en ce moment, la France avait un programme d'essai nucléaire dans le Hogar, le désert algérien du Hogar. Le programme d'essai nucléaire n'était pas bouclé et l'indépendance de l'Algérie était imminente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après l'indépendance, on a transféré le site d'essai nucléaire à Mururoa, en Polynésie française. Mais essai nucléaire, nous avons fait Algérie. les les le vent radioactif daan na ñëw bay rey nit ñi boori Niger ak Mali. Mhm. nous sommes dans les années 60. Mhm. alors xam nga leen général de Gaulle proposé woon mooy ñu amputé et dans la constitution pour aller vite dans la constitution de 58 communauté française bi nga xam ne ça a été le prélude à l'indépendance xam nga lu ñu ci bindoon. Mhm. OCRS organisation commune des régions sahariennes OCRS organisation commune des régions sahariennes la France voulait créer un État nouveau au Sahara occidental la France voulait créer un État sahérien, amputer le, le, une partie du Sahara mauritanien, amputer une partie du Sahara malien, amputer une partie du Sahara nigérien, amputer une partie du Sahara tchadien pour créer un État saharien, un État fantoche et un État tampon. La crise malienne, la femme Djogé na donc loolu moo indi loolu donc loolu pour mu am ko il faut ñu créer ay rébellion mais la rébellion touareg a été l'instrument approprié faut ñu créer ko te à propos de cette <clears throat> rébellion touareg parce que je survole hein, parce que si je devais élaborer fi la ñuy fanaan mhm. je survole mais la rébellion touareg qui est la figure emblématique de cette rébellion touareg c'est Iyad ak Gali Iyad ak Gali c'est le chef du sinim du jin le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans la fraction la plus radicale de la rébellion islamiste au Mali mais moom jabaram française la man j'étais à Kidal maag Serge Daniel Serge Daniel RFI bi ñoo bokk oto dem ba Kidal maag moom avec la HCR à l'époque la fi de Cheikh Amidou Kane écrivain Cheikh Amidou Kane sa fille Awa Kane travaille au HCR moo nekkoon Bamako on a été jusqu'à Kidal man dama wax li ma xam parmi les les, les gens de la am naa ci ay le chef du GESIM est un euh, il s'appelle Yada Gali. Mm -hmm. il appartient à la famille princière des Ifora mais jabaram mu ngi tudd Anna Walet Bicha Anna Walet Bicha est la fille di docteur Bicha qui servait ki dal en 74 tubaab Fran français yi suñ ne ñu ngi ut euh, euh, waa ji pour di ko jéem a rey c'est de la plaisanterie waa ji seen waay la bon mais enfin c'est-à-dire ñun li ñu war a moytu mooy le narratif français là. français yi dañ ñuy nax. di ñu wax lu kenn xamul. soo déggee ñu ne aussi li ma mënta d'accord moo di Pape au nom de la démocratie est-ce que war nañoo jël des sanctions létales sanction létale mooy sanction boo xam ne même les bébés de Zender dañ doon dee alors alors que bi le général Tchani di def coup d'état tàgguwu leen sax les bébés les couveuses étaient sans sans électricité là-bas à Zender Tawa ñuy dee. des frères africains acceptent de faire ça à un autre pays africain au nom de la démocratie, au nom de la phobie du coup d'État alors que c'est la France qui est le promoteur des coups d'État en Afrique le coup d'État de Séni Kountché kan moo ko def du France man waxuma ko Diori Amani moo ko wax fu mu ko waxee moo ko wax Ibrahima Baba Kaké Mémoire d'un continent mu ne ko j'ai été renversé par la France parce que j'ai voulu élargir le cercle des acheteurs de l'uranium dama bëggoon a jaay Israël jaay Canada français du fi am ñu bañ te à l'époque mhm. c' pas Areva parce que li ma wax dafa yàgg c' le CEA le commissariat à l' énergie atomique mhm. moo doon exploiter l'uranium du Niger bam bam ne du dafa dafa bëgg a élargir le cercle des des acheteurs automatiquement la machine Jacques Foccart est entrée en action Séni Kounté renversé ko Diori Amani France boobu mun nañoo jox leçon aujourd'hui. loolu exemple yi ñu a joxe bari na ci Afrique. ATT c'est-à-dire foo laal seen intérêt loolu la taxawaay boobu ci am ATT Mitterrand a prononcé le discours de la boule ne Moussa Traoré da démocratiser. Moussa Traoré ne non je vais démocratiser mais à mon rythme. automatiquement ñu ATT ah. mu daane ko. Mm-hmm. Mm-hmm. kan moo daane kan moo daane Moussa Traoré la fondation France Liberté de madame Danielle Mitterrand. c'est quelqu'un qui est l'ami de Boubé Maïga qui vous le dit. Boubé Maïga, c'était le directeur de la sécurité d'État au Mali, un à moi. Mm-hmm. Il a été directeur de cabinet de Conaré, puis ministre la Défense, premier ministre avant de mourir. Mm-hmm. Il mi c'est la France qui est le promoteur des coups d'État. Mon mm wax nak nan ce coup d'État amé da ngeen di wara sanctionner nangam nangam. Burkina le président Kaboré était démocratiquement élu. Mm -hmm. Mais biko Dami daane France dafa noppi parce que Dami Ba c'était leur homme. Mais biñ dané Dami Ba mu mer. parce que Traoré moo daane Damiba mais bi Damiba daane Traoré euh, Kaboré un président démocratiquement élu France waxul dara c'est ce même Damiba qui avait permis à Blaise Compaoré de rentrer pendant quelques heures et de retourner à mm-hmm. donc France daf ñu yàpp le narratif français là formé chloroformer l'opinion des intellectuels africains c'est que nit ñi dañ jàngul histoire. Mm-hmm. noonu la demee. d'accord te te te te suñ demoon guerre. Mm-hmm. nga gis lu ñaaw. xam nga ne le général Tiani il a fait Thiès l'école des officiers d'actifs tout je la situation serait à la fois cocasse des soldats sénégalais des officiers sénégalais en train de tirer sur des officiers nigériens dont ils ont été et qui euh, de promotion le général Wali Faye mm -hmm. emblématique patron de la gendarmerie sénégalaise sa femme est nigérienne une de ses femmes est nigérienne ñu bari il était à Niamey Mamadou quand ils sont revenus ils ont eu leur galon nekk à la gendarmerie. mais baal ma nga wax olof nag. jabaram jabari Waly Faye. Mhm. Awsa la. moom moo jur l'épouse de François Collin. Mhm. de l'inspection générale d'État. yaay ji Awsa la alors ce qui veut dire que imaginez suñ demoon foofu di fa guerre yi ni muy mel. musiba day am mais enfin. man daal mais mais bëggoon naa xam. par exemple est-ce que yaakaar nga AES mën nañu réussir seen mission. Hmm? est-ce que ya AES. E yaakaar nga mën nañu réussir seen seen mission. mais non xam nga ay lan la. waaw wax naa la ko léegi nee naa la c'est un accident. nit ñu mer ngembu. mais nag waaw c'est un instrument confédératif de sauvegarde nationale à l'échelle des trois États. <laughs> pour jéem a mucc moo tax ñu créé ko. dafa te ma ma yokk ci lenn. Mhm. nit ñi dañuy juum confédération la du fédération. Mhm. confédération la chaque État a sa souveraineté. Mhm. te aussi ñoom dofuñ de xam nañ ne ce sont des régimes d'exception des régimes illégaux des régimes de putsch. ñoom mënuñoo def confédération mënuñoo def fédération sans interroger le, les peuples parce que au Mali vous avez tous les segments vous avez les intellectuels vous avez les syndicats vous avez la société civile vous avez la paysannerie vous avez tout donc Goïta qui est un putschiste mënut a tëb tëb rek engagé le destin du Mali dans une confédération sans référendum te te barki démb j'ai reçu un message d'un ministre état de l'AES bugguma wax turam il m'a mu ngi sur portable nee ma même monsieur Ndiaye nous allons procéder effectivement parce que comme il lit mes xam na ne je suis très attentif à ce qui se passe là-bas il a voulu me briefer ne ma nous allons procéder à des référenda le plus le pluriel de référendum ils vont procéder à des référenda dans chacun des pays dana am référendum parce que ñoom xam nañ ni ils n'ont pas la légitimité en bandoulière ñoom mënuñoo dem machin. d'accord dégg naa aussi pour terminer Ali Ndiaye Ali Faye fi toogoon démb brillant intellectuel ah nee na. quand il y aura un coup d'État au Burkina l'AES va s'effondrer comme un château de cartes il a raison dans une certaine mesure effectivement un coup d'État pourrait euh, changer la donne parce que tout ce qu'un char de combat fait un autre char de combat peut le défaire donc li Ibrahima def euh, beneen kii mun mun na koy def mhm. mais nag damay fàttali ne y a pas que les coups d'État qui disloquent les confédérations ñun notre fédération avec le Soudan. la fédération du Mali. la ko tas lan la coup d'état tasu ko de te pourtant tas na. alors donc il faut éviter toujours les comparaisons. qui sont un peu à l'emporte-pièce là. alors doyen mais daf ci am benn sanction bu ñuy annoncé. Euh, que mën nañ ci egg ba euh, yenn pays yi nga xam ni ñoo bokk ci as e pour ñu dem ci yenn pays yi nekk CEDEAO day laaj visa. bon léeg-léeg nga dégg loolu nga dégg lu ko démentir est-ce que jàpp nga ni mën nañ egg ba foofu. je ne crois pas bon euh, attention. la CEDEAO peut prendre des décisions en tant qu'organisation. Mmh. Oui, des décisions fermes. la CEDEAO peut prendre des décisions fermes ça c'est indiscutable. mais loolu day réciproque bu boobaa itam. oui non avant même d'arriver à la réciprocité d'abord il faut dire quelque chose c'est que ici on a on a euh, deux organisations qui sont soit superposées parce que on a la CEDEAO on a l'UEMOA mhm. or les dispositions ici et les dispositions là-bas am na fu ñu niroo mhm. parce que dans l' espace UEMOA tu peux circuler librement. Mm -hmm. les biens et les personnes parce que ñoo bokk monnaie. ce qui veut dire que même suñu appliqué woon la décision de la CEDEAO pour Malien ñëw Sénégal du am problème parce que nous sommes membres de l'UEMOA dans l' espace UEMOA duñu am problème. mais suñ bëggoon a dem gana soo bëggee dem gana foofu la problème di amee. d'accord voilà mais soo bëggee ñëw fii. parce que disposition am na disposition yu nekk ci UEMOA ce sont des dispositions qui permettent également la circulation. sans oublier que loolu li la jaaxal. Mhm. te nag xaw lay xaw lay bett. Mhm. man itam euh, euh, j'y ai pensé admettons par extraordinaire. Mhm. suñ noonu vi léegi visa dañ koy généraliser et de façon rigoureuse. mais tu penses que Sénégal dana ci d'accord man je crois que Diomaye ak euh, Sonko ci d'accord. le Marocain entre ici. comme il veut le Mauri le Mauritanien entre ici. Burkina non. Ouais. Alors, alors, que côté. du mun a dugg. d'accord te je te rappelle que la Mauritanie a quitté la CEDEAO. waaw ah, si ci loolu laa bëggoon ñëw parce que bi nga may wax exemple Sahel fi mu commencé nga wax. Mhm. tey Mauritanie féetewu ci fenn loolu itam doy na waar quand même. non était au sein de la CEDEAO au départ. Mhm. membre la woon mais en mille dafa génn Mauritanie dafa génn mais les raisons pour lesquelles la euh, la Mauritanie génn. Euh, ce sont des raisons euh, plus ou moins euh, voilées. Mhm. parce que ñoom dañ lay arguments yi ñuy joxe en vérité ce sont des arguments euh, d'esquive mhm. mais li tax Mauritanie génn la Mauritanie est soucieuse de sa de la structure de sa démographie parce que Mauritanie arabo-berbères ñoo ŋànk réew ma or au rythme où vont les choses en termes de naissance de de, de démographie galopante dans telle ou telle communauté suñ continuer nii noirs yi dañ gën a bëri donc ñoom ils ont déjà le péril noir chez eux je parle euh, euh, du, du pouvoir Beydane qui gouverne la Mauritanie mhm. alors si si la Mauritanie reste dans dans la CEDEAO qu'est-ce qui va se passer avec les dispositions qui sont claires et contraignantes alors y aura des flux des Nigérians pour entrer en mhm. Mauritanie sans visa mhm. des Sierra Léonais même chose des Libériens des Guinéens toog fa di liggéey et cetera mais à la limite et au bout d'un certain temps la minorité blanche là sera noyée submergée ñooñu loolu lañ ragal ils veulent sauvegarder la structure de la de leur démographie mais xam nga loolu doo ko mën a wax. Mhm. la Mauritanie est le seul pays au monde où les chiffres du recensement relèvent du secret défense soo ne population bi ñaata la ñu tëj la chiffre officiel rek nga mun a répéter. mais les chiffres réels soo ko waxee njàpp la. bon la Mauritanie c' un cas autre cas te moom itam nee na comme bokk naa Ligue arabe daal bon mun naa bañ a bokkati CEDEAO. d' accord mais mënuñu mënuñu fa génn te waxuñu ci victoire Gazouani bi nga xam ne moo mujj. par exemple oui, mais avant de xam nga xam a la mission de <coughs> président président euh, kii euh, Diomaye Faye ak. Euh, le président Faure du Togo. Mm-hmm. Mm-hmm. cette mission sera une mission conjointe. je vous disais que que l' affaire est épineuse. Mm-hmm. parce que xam nga le Togolais aura une longueur d'avance sur le Sénégalais parce que fii Macky Sall moo fi newoon avant Diomaye Macky Sall a appliqué les sanctions les plus dures les plus sévères contre le Mali à l'époque Faure n'a jamais été associé à ces sanctions il a toujours louvoyé moom dafa muus soo gisee la junte nigérienne là n'a pas connu un étouffement économique c'est parce que le corridor togolais fonctionnait toujours. Diomaye opposant Sonko opposant aussi musuñu apprécier sanction yooyu. justement justement voilà. mais sauf que quand même euh, le nom du pays ça résonne toujours négativement dans dans dans la mémoire collective parce que Sénégal demoon na ba mettre en ordre de, euh, en tout cas il y avait des dispositions préparatoires pour intervenir contre le Niger loolu jusqu'à présent c'est gravé dans la mémoire des Nigériens mais ça c'est pas le Sénégal de Diomaye c'est le Sénégal de. Macky euh, de de Macky Sall suñ demee Diomaye la ñuy kële la ñuy gën a óolu togale bi la ñuy gën a óolu moom la ñuy déglu te ñii ni ma leen xamee xam ña fa ne xam ministre je suis presque persuadé que même su demee ànd ak foor dana am rek euh, des cérémonies officielles mais guddi mbaa xaaji guddi ñoom danañ wéet ak foor waxtaan te Diomaye du ko yëg je ne leur manière mais li wër teewoo daal. moo di am amul ay risques. est-ce que amul ay risques par exemple euh, tey ñu bari ci ñi nga xam ne ñoo de bokk ci réew AES yooyu dañu jàpp ni euh, Ousmane Sonko ak Diomaye dañ leen trahir. bon la le mot est trop fort trahir mooy lan bon trahir non je ne comprends pas dans ce domaine on ne peut pas parler de, trahison. Ousmane Sonko est un homme de conviction qui avait affiché ses convictions étant dans l'opposition. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a perdu ses convictions, mais fi il est dans l'État. Bon nag, en œuvre de la diplomatie, ça n'a rien à Euh, du, du, du, il, il peut, on ne peut pas établir un rapport mécanique entre les discours qu'il tenait et, et, et, les servitudes, les nécessités de la, de la diplomatie. À ce propos, je crois que le dossier est tellement épineux que ils doivent élargir l'expertise. Certes, le ministère des Affaires étrangères a des ressources immenses, mais nous avons aussi, si vous voulez, des organisations non gouvernementales qui sont dans la médiation. Le Déménigima, je crois que son président comment il s'appelle encore Maodo Malick Mbaye était là hier alors il a parlé de ça il y a aussi d'autres organisations yu demee noonu même ñoom Alioune yi ngay gis ah c'est-à-dire que il y a une expertise extra gouvernementale extra ministérielle qui peut être mobilisée aussi et une expertise en renfort. Euh, dans les bagages de voilà dans les bagages de. Euh, comment il s'appelle notre président Diomaye. mais premier voyage Diomaye ñu gis mu def ko Mauritanie. Mhm. ñu bari jàpp nañu ne xëy na dëgg la jegeyantoo bi la ak relation yi. mais ci ginnaaw itam euh, ñu bari gis nañu ne xëy na du loolu euh, mbiru gaz la mbiru pétrole la mbiru leneen la ban gis-gis nga am ci loolu. écoutez y a tout ça ce que je sais c'est que les États n'ont pas d'amis ils des intérêts te te suñ diggante ak Mauritanie aussi dafa am yu ci ne yoo xam ne léegi euh, caaxaan buddiwu ko te xel xel du nangu sax ñu di ko jéem a buddi d'abord on est membre fondateur de l'OMVS organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal mm-hmm. on partage les eaux du, du barrage de Manantani. Mm -hmm. On partage l'électricité. Rachtidoli, sur le plan humain, les deux pays sont trop soudés. Et comme le disait Bismarck, un pays peut choisir ses amis, mais il ne peut pas choisir ses voisins. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Autrement dit, un pays fait son histoire, mais subit sa géographie. Donc, puisque nous faisons notre histoire, il n'y a pas de problème. avec toute la liberté du monde, on peut être l'ami de l'Inde, l'ami de l'Albanie, mais nous subissons la géographie, donc le voisin mauritanien moom il faut composer avec lui impérativement boole ceeg boole ceeg li ma la wax léegi d'ailleurs justement à propos de sanctions xam nga su nekkoon réciprocité day am bon musiba am parce que le barrage de Manantani fu mu nekk en territoire malien am na façon sanction yoo xam ne soo ko bëggee def la junte la ñoom itam mun nañoo téye barrage bi <laughs> loolu moom musiba ah, catastrophe non il peut fermer les vannes. à fait ndox mi dootu ñëw. Mhm. parce que c' est dans leur territoire. Mhm. te soo buggee ubbi vannes il faut nga déclarer leen guerre. te si tu pénètres territoire malien c' un casus belli guerre am bon moo gis nga li ma bañ moo di France di ñu dugal ci tooxi doona yii. Mhm. parce que c' est c' est la France qui est la locomotive. dégg naa démb ñu naan le Nigéria ne peut pas être un pion de la France mais ça c' est une évidence le de par ses ressources humaines. Mhm. de par ses ressources tout ah, la France ne peut pas manipuler le Nigeria. D'accord. Mais le problème, c'est que cette crise-là a pour mhm. épicentre le Sahel. Mhm. C'est là où l'influence française est dominante. Et, le Nigeria ne fait que suivre les francophones parce que cette crise est une crise qui a pour épicentre les pays francophones. Tant que le Libéria a une crise, là-bas, c'est les anglophones qui menaient le bal. Nous Sénégal bokkoon na ci mais le commandement de l'ECOMOG a toujours été ghanéen et nigérian il y a un partage des rôles quand la crise a pour épicentre un pays francophone les nigérians ak les ghanéens dañu ne nii a ah, yéen francophones yi jiitu leen lu ngeen def ñu ñu d'accord ci si c'est ci si c'est dans la zone euh, anglophone même chose parce que CEDEAO dama lay fàttali ne ñetti compartiment la la zone francophone la zone anglophone ak la petite zone lusophone mooy Guinée-Bissau muy làkk portugais d' accord bi ma lay wax tout à l'heure ci Victoire Gazouani da nga ma da nga da nga da nga ñëw ci beneen élément donc ci bëgg ma bëgg aussi nga nga nga nga abordel ma ko euh, parce que ci diggante ak Abdel Aziz li ci xew gis nañ ko victoire bi itam gis nañu par exemple euh, contestation yi ci am xeex yi fa am mais daanaka presque mujjul fenn ban jàngat nga am ci ci loolu. xam nga en Mauritanie. Mhm. on a la démocratie de la baïonnette. démocratie amu fa. c'est là aussi où, où, où, où le discours français est un discours vraiment <clears throat> fallacieux yow tu, tu congratules euh, Ghazouani tu oublies que Ghazouani n'existe que par la, par l'armée mm -hmm. mais ki mu tëj moo ko jox nguur gi mhm. parce que euh, Aziz moo toogoon organiser élection yi mais loolu Sénégal mën na fa bañ a egg ci diggante Ousmane Sonko ak Diomaye lan ci Ghazouani kii non on ne peut même pas faire là mën na fa bañ a egg tandem bi mën na bañ egg